Sonko euh, li nga wax dëgg la xam nga Ousmane Sonko tey jàpp naa ne képp koy jullit doo ko yéene kaso suñu waxantee dëgg mais dafa am benn problème bu am imagine toi tey Ousmane Sonko yaa ngi ne dañ lay wut maanaam dañ lay comploter euh, tey jii lu mu mën na metti metti metti yaakaar naa bu la dee film man su doon moom barki alxuraanu karim du ma geesu di ko xool wala ma leen di tontu parce que nit bu lay bu lay ut maanaam yow yaay moytu xam nga son Sonko tey du fekkee dañ ne dañ ko doon film comme wax li ma ko déggee. Euh, filmé bi ñu ko doon filmé moo ko metti moo tax mu nangu téléphone bi tey jàpp nañ ko tëj nañ ko ci te pourtant am na yeneen projet yoo xamante ni moo ëpp doole comme lii xam nga projet Adji saar jaar na fi Mame mbay Niang jaar na si yaakaar na loolu moo gën a pire que lii kenn tëj ko ci lan moo tax ñu koy tëj ci lii nan waxante dëgg gis nga Ismaïla man Ousmane Sonko yàlla xam dama jàpp ne ñu ne ci wetam wala ñu ko encadré ñoom duñ xalaat quoi parce que tey bu doon xalaat am na yu bëri yoo xamante ne tey du ko daal lii c'est pas normal Ousmane Sonko ñu ko ciy jàpp d'accord man ànduma ci dëkk bi tàkk parce que ñun jàmm leen bëgg ñuy ñaan yàlla parce que dëkk bi bu tàkkee ñun ñëpp suñu liggéey yi arrête mais Ousmane Sonko man dama jàpp ne ñi ànd moom euh, duñ ko xalaatal lu bëri quoi te aussi état moom du fekkee état moo ci teg loxoom maanaam état moo ci dugal loxoom moom war na jàpp ne mu dafiy jógee parce que Ousmane Sonko tey ndaw la te réew bu nekk bëgg nga ku mel ni Ousmane Sonko man daal franchement man jaaxal na ma trop ndax Ousmane Sonko. nan waxante dëgg li ñu koy teg metti na yaa ngi comprendre métti na trop parce que tey ji danga koy xool bu nga ko tegoon sa baay gis nga Ousmane Sonko li mu daj ñi ak fameem ku ne da nga koy xool sa bopp ñu ko tegoon sa baay naka nga koy dundee man ànduma ci kuy saaga moo xam ngay saaga Macky saal ku mën a doon waaye Ousmane Sonko li ñu ko teg nii barki alxuraanu karim ku nekk boo ko xoolaan ci sa papa ne sa papa nga jël palaasam teg fa Ousmane Sonko ñu koy torturer di ko saaga wala ñu koy def ay yenn yi wallaahi la daf lay metti mais nag man dama jàpp ni Ousmane Sonko su ma nekkoon place am man ñu may jéem a filmé ma jéem a ut. billaahi dama tontu Antoine nag waxuma ay waxam Antoine moom waxuma ay waxam parce que tey jii affaire mi ngi commencé tey xel mais Ousmane Sonko su dee dafa war nekk 2024 euh, dafa war nekk euh, candidat bu ñu xoote woon ay kayitam ak lépp dina ko doon parce que yàlla bi na ki doon euh, président ba pare mais daal man franchement entourage am na ñoo xam ne nag moom franchement ay jàmbaar mais na ñoo xam ne dañoo nelaw.